xam mooy jëwriñ ji mi ngi nii toog ànd ak mboolem njabootu kër Cheikh Ibra Fall gépp kon taalibe yëpp fu waay mën a toll ci dégg rajo bi fa nga toog baax na yeggal suuf te taatan kàddu sëriñ bi loolu mooy ndigal li murid yi dafa am Baye Fall bu fi wàcc camaraam lépp lépp ma nga ca dafa am benn Baye Fall bu wàcc camaraam ñu jël ko te lépp ma nga ca ay xéwalam nga ca téléphone nga ma nga ca lépp ma nga ab caméra la na ko ñëpp bàyyi xel ku ko gis nee naa ñëw ci yow sëñ Saliou nee na nga waxal leen nan ñu may ak dégloo tuuti nag jataay bi dafa xaw mel ni lu xat ca dafa tàng kon kàddu yi cant la ak ngërëm rek ku far ab dool tofootu koo far na nga ko andi waa tey loolu tofootu juróom ñaar dool tofootu koo far rek waaw baax na waaw bàyyi loolu waaw murid yi sëriñ bi daa bëggoon ñëpp dimbali ñu maase daal sëriñ Cheikh Fall ndeysaan déglul déglul dina leen wax loolu nan ko wax ci suuf waaw kon ñun ñépp nag nan xam ne am leen digal waaw may may ko mu nuyoo Serigne Cheikh Fall Baye Gour moom sëñ Abdoulaye mu joxe loxo ci ñëw rek dimbali ko waaw baax na waaw baax na de téyel de waaye baax na ngir yàlla eh eh ah waa léegi nan dégloo sëriñ bi jox na ndigal sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mu jox ndigal sëriñ Saliou sëriñ Saliou ma demal ci sëñ Fallou mu yëkkati kàddu sëriñ bi jëm ci Cheikh Mouhamadou Mountakha muy cant yi ak bàyyi ko ci jëriñu Cheikh Ibra Fall yi ñun ñëpp ñu maase ko déglu sëñ Falilou Fall kon murid ñun ñëpp ñu maase déglu kàddu sëriñ bi jëwriñu Seex Ibra ji nag moo bëgg a joxe ay cant ci ndigal liñ ko joxoon mu bàyyi ko ci sangamu tëdd bii di yaakaari lislaam ji di yaakaari yoon wi Seex Falilu Faal nag lañ jox kàddu gi mu bëgg koo wax ci turu kilifaam yëpp ànd koog njabootu kër Seex Ibra Faal gépp ak taalibe yi kon ñu maase déglu sëñ Falilu mu di ni sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul Cheikh Mamadou Moustapha Fall muy sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye nag ci kàddu jëwriñam ji sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mii toog di jëwriñu sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenn Fall di jëwriñu kër Cheikh Ibra Fall gépp kàddu yii sëriñ Fall nee na mu yëkkati day kàddu yu ndigal waaye du kàddu yu ñu war a yëkkati ndax fii ñu toog ci sëriñ Touba buñ fi ñëwee danoo war a yor jikkoy néew ab néew dey lu wax ci kanamu way sang ya lu yëngal benn cëritam lu xamit fenn fuñ koy jëme lu amati it genn bëgg xanaa bëggug way sang yee rek kon rekk waay murit bu nekkatee fi kanamu sëriñ Tuubaa ñun ñépp nan dellu maase xam ci ni li nu war ñun murid yi su boobaa nan mel ni ay néew waaye yëngatu bi ak xëccoo bi ak buuxante bi war nan cee amaat am njàngat ci ñun murid yépp waaye rawatina kër gii di kër Seex Ibra Faal nee na bu ñëwatee fii ab yar bu ànd ak i teggin ànd akuk dal moom lañ fi war a indi ñun de bu nu ñëwee bu suñ kilifa àggee ba nuyoo ñun ñëpp nuyoo nanu waaye kenn ku nekk bëgg àgg jox loxo sëriñ bi nee na loolu du yërmande du ak dal ci sëñ bi moom ku ne xam na ni fa suñ boroom moo nu fa nekkal mu ngi ni toog nee suñ borom dey àdduna jëpp bu nu xëyee ku ne da nga xëy tàllal ko sa loxo moo xam ngay ngootoot moo xam ngay mbindeef mu mën a doon te yàlla dina dégg lépp te it dina gis lépp te lépp dina ko delloo te sëriñ tubaab mii toog mooy suñ borom fi ñun mu nekk ci ëtt bii toog ñu jàkkaarloo ak moom ak ñi nekk ci kër gi ak ñi nekk ci pénc mi ak ñi nekk ci àdduna bépp ñoom ñépp ak ñun ñii jàkkaarloo ak moom lépp la yemale Cheikh Mountakha Mbacké nga gis lépp mi ngi yëg lépp kon bu ñëwetee fi moom waratunoo am genn bëgg lu dul ak bëggam kon sëriñ Amdi Faal moom sëñ Modou Mbenda Faal ci kàddu jëwriñam ji muy sëriñ Cheikh Fall ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi mu àndal nga xam ni kenn desul fukki kër yi ak benn góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp maase woon nañ ci ndigalam la wuy si sëriñ Touba ci baatum ndigal bii mu joxoon Cheikh Ibrahima Fall muy baatu sikru yi ndax kaay leen wuyu kat mooy kaay leen jël ku mëntu ñàkk demal nga wuy ji te kaay lay wuy ci moom ku ne xam na ni bu nu ko Sëriñ Tuubaa waxee war na noo gën a rafet njort bu baax ci yépp fànn nag te xam ni moom am nan ak njéggal am na nu yërmande am nan ay ndimbal am na nu tawféex am na nu ak texe ndax bii baat baat la boo xam ni boroom tur wi nee na sama tur wii xajul sawara bépp jullit boo xam ni dégg nga ci aw làmmañam baat bii ñu doon yendoo mu mujj ci aw làmmañam ruuga rot mu ñibbi na kon ku nekk xam na ni booba baat moom ku ko mujj wax rek sag ruu moom ñibbi naa àjjana Baay Faal te loolu mooy tax tey ak ëllëg te baat bi kon moo ëpp lépp nee na sunu waajur bu baax wa dey doonoon jëw dañuy seeq dafaal ja ñu ko daan wax sëñ Modou Amin dafaal nee na waxoon na ca làmbañam wa ni waajur bu baax wa neewoon na ko baat bii foo ko waxee ñetti yoon sa digganteeg sa boroom dara doxutu fa nee na bu ci ñépp maase woon di wax baat bii suuf si dina tàng ba ab naa féq dootu ci mën a taxaw kon baat bi moom moo ëpp lépp kon nag kii na ko joxoon mi ngi ni toog ñim ko joxoon it ñi ngi ni toog ñun day mbàkke suñu bëgg genn la mooy suñu borom mi nga xam ne mooy def te man murid yëpp ñi nga ànd ñaan ci darajey Sëriñ Tuubaa ak darajey muritam ba di Seex Ibra Faal sa jëmm ji sa borom yàggal ko fi te gën laa wéral nag bu baax a baax jàngkat yi day nee na daa xamul baat boobu ñuy wax mu moo ci saat waaye sa dund gi seemu taxaa murid yëpp bul maasana ni bul sañoon mooy moo ci saa su yoon wi nga xam ni da nga fay dund toog bam soob la saa nag lu mu am na fu mu yem waaye yow day mbàkke sa dund na aju ci sa coobare ñun waa kër Cheikh Rafa bëgg noo ko bëgg Cheikh Mountakha yal na la Serigne defaree noonu sa dund gi ci barkeb Cheikh Rafa mi nu yendoo murid yëpp maasarandi ñaan di la ñaanal loolu te rafet nañ jot nag ci ñaan googu. ndax lii ñu yendoo tey baatum ndigal la te ndigal nag mooy njariñ tey mooy njariñ boo liggéey ci bu ko jàmm ba jëfee kon nag Mbàkke li nga ñu digaloon yaakaar nañ ni jëfe nañ ko de ñun ndax bi ñuy julli fajar ci jumaay sax moo sëñ Basiru ji lay agsi moom ci kër gi bi nu sëlmalee mu ne leen ginnaaw sëlmal nan turu yàlla wi nan ko yëkkati ñun ba sëñ bi xam ni lam bëggoon ñun ñoo nga ca six heures mooyee lan tàmbali turu yàlla bi ba huit heures mooyee quart ñu joxe ndigalul waxtu wi ñuy doog a dalloo ña doon si kër ca booba ñu yëkkati nag turu yàlla wi nga xam ni sëñ bee joxe woon ndigal ni juróom-ñetti waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu ci ngoon ñu ànd ak ñoom yëkkati ko ba agsi fii ñu agsi nag kon ñun ñëpp rafet nañ njortu bu baax te yow mii day mbàkke di Cheikh Mouhamadou Mountakha yaa nu waxoon ca Poroxaan ni nu sunu borom day nee na fi ma jaam bi jort ci laa koy fekk kon nag ñun Baay Faal yi jortu nan ni lin bëggoon lépp am nañ ko bés ni ki tey muy defarub tey jii ak wàll gën jëm njégalu tey jii ak njégalu ëllëg gën jëm moom daal mbàkke buñ bàyyi koo fii ci yow ci bépp murit bu kenn jëmati ci leen luy taxal ndax set nan wicc alhamdulilahi rabbil alamina nee na sëñ bi set nañu tey ban set wicc kenn amatul benn bàkkaar ku fi jóge defaat ko yaa ko sàkku jiwaat waaye boo fi jógee mel nga ni ñaaji woon màkkate nee nan foofa kat sang ba moo waxoon ni ku ñëw fii fi man ma jéggale sa bàkkaari tey ak ëllëg kon nag ñoo ngi fii ci yow yaay sunu aj yaay sunu aj yaay sunu koor yaay sunu julli yaay sunu asaka yaay sunu muru koor ñun daal mbàkke ginnaaw am nan la am nan lépp kon ñun Baay Faal yi del nan gën a sant yàlla bu baax a baax bi nu amee Serigne Touba ñun ndax am sëriñ tubaa rek moo di am am sëñ daam sooda lu waaye mën a am ci amoo sëriñ bi amoo dara waaye lépp lu waay ñàkk ci am sëriñ bi Cheikh Falilou Fall nee na am nga lépp kon neen li nu am nan ko xamaat bu baax te gën koo jàpp bu baax a baax ci gën a topp ci ginnaaw moom mii ci bëggam gi ak ndigalam yi ca di ko jëfe war may Tuubaa ji nga xam ni sëriñ bi da koo yeesalaat dellu ko tegaat ci loxol Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall day fas na ko yéene def ni mu ko bëggee ànd ko njabootu Cheikh Ibra gépp waaye nag ñu ci sàkku ndimbal ñu am taw féexi sëriñ bi ak ndimbalul Cheikh Ibra Fall koy defal sunu cant daal xajul ci sunuy xol xajul ci sunuy làmmañ murit yépp a ngi ni mbàkke góor ak jigéen mag ak ndaw jaam ñépp a ngi nii defarug tey daal lañu bëgg ak góor lëg ak ndimbalul tey ak ëllëg ak njéegalu tey ak boo liggéey te fin ko yaakaare muy sa si yëmm ji kon na jaam ñaa ngi di toog Cheikh taxa ñoo ngi tuub cay jéggalu di sàkku ndimbal ci yow di ñaan sa murid bi fi nekk nag di jëw di ñu Cheikh Ibra Fall ji di sëriñ am di faal moom sëñ Modou Mbène Fall murid yépp a ngi ñaan nga ñaanalal ñu ko Mbàkke na fi gën a yàgg na gën a wér ba lim yéene liggéeyal maamam jaar ko ci sa jëmm ji mu def ko ni mu ko bëggee te ànd ko murit yëpp loolu ñëpp a ngi koy ñaan mbàkke nawet bii ñuy jublu nga xam ne ñu baree bari seen yaakaar a ngi ci sunu borom mi nga xam ni moo yor yaakaar yi ak yow mi nga xam ne ci sa loxo la ko teg nag ñu dimbali ba nawet bu barkeel bu woom bu naat sama am noo ngi la koy ñaan bu jógee fii daal ne lépp tooy na ndox mi ñëw mbàkke te ànd ak jàmm ak barke lépp lu waay di liggéey nag mu doon sam nawet loolee na mel ni nawet bii na barkeel na yokk na ànd ak jàmm te lépp ñu liggéey la ko sëriñ bi kon nag jàmm ji daal ci sëriñ Touba mii la nekk de yow mii di sëriñ Touba ñoo ngi lay ñaan jàmmi tey ak jàmmi ëllëg adduna mi ñu nekk na jàmm nekk ci adduna jëpp rawatina fukki régions yi ak ñeent di réew mi di Sénégal rawatina fa ab jullit nekk rawatina fu ab murit nekk rawatina Touba gi nga xam ne nag mooy ndeyi dëkk yëpp di bàyyi dëkk yëpp kon na fi jàmm sax dakk akuk taalibe ak yarb ak teggin akuk jub noo ngi tuub nag nee na di tuubaaleel murit yépp ci kàddu yii mu yëkkati mu bari lool te amul njariñ li am njariñ mooy lan ñu def loo woon muy sa ndigal jëfe nañ kon nag Mbàkke ci leen yaakaar ngeen ndigal kon Mbàkke jëfati ñoo ngi santati bu baax nee di santal sëriñ bi nag mu murit yépp ci woo gi mu leen woowoon muy turu yàlla wi ba ngeen wuy si ko ci kaay leen wuyu moom mooy murid yi kaay leen jël sëñ bi woowoon nanu nag ni nu kaay leen jël murid yëpp wuy si nan ko góor ak jigéen mag ak ndaw nee na taatan nan suñuy xol taatan suñuy ndab xam ne liñ ci bëgg yaa nu ko mënal te di ñu ko defal taxaa Mountakha ibnu Sëriñ Bassirou def ko jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke